e citno kiin te citno roogo yaal ten moƴun e roogo yaal mete citta ka bindel me ɓe ngarincol aca combat sok digante mam babou jirnda a ki nga xam ne moom mooy moon Fimela mam babou moo ñëwoon gannaaw moon Fimela moom lañ jàkkaar ñaari attaquant lañ lamb yàgg waxoon naa la ko eh moom jëli na ko moon mam babou ñaari attaquant lañ moon moo ñu woon gannaaw Mame Babou moom lañ jàkkaar lool moon fim la Mame Babou jirnda sorom su ma nee jirnda ndeysaan sama xel day dem ci ah sama xel day dem ci Seni Ndiaye Seni Ndiaye bëggee naa ko borom Espagne waaye su ma nee jirnda sama xel day dem ci Mouss Ndiago bëggee naa ko nee naa ko attaquant défenseur yu yàlla bi ndeysaan suma ne nee sama xel day dem ndeysaan ci saar duudu bëggee naa ko su ma sama xel day dem ci uus di bala uus di bala bëggee naa ko ndeysaan yungaan feleer kor mari song la o ka bisam njom jaajoxam ke yaaya ley naye waaw waaw ndey faatu la yaayu la lion la cantatrice o sisno ndey faatu a dama jaw ca jawen bala tonton Moussa Ndiaye maa ngi lay siyaar bëggee naa ko ndeysaan waaye Moussa Thiaré Boyel Bandi maa ngi koy siyaar de kontaanee naa ko papa borom jirne maa ngi koy siyaar kontaanee naa ko maam baabu jëli na ko maam baabu moon waaye su ma grand bëggee naa ko Ibou Diallo Ibou Diallo bëggee naa ko ndeysaan borom bin kuram di bëggee rakam Moussa borom France bëggee naa ko Hey, Mamba buar na kondomu. Belanti. Belanti Mame Babou war na ko ndomb Belanti daan na ko Mame Babou daan na moon Mame Babou en demi-finale Mame Babou daan na moon